Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fi nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 quarante cinq suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tiwawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jégleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt jàpp 22 heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi ni topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahu llahu wa raa tey ci àllarba ji fukki fan ak juróom ñaar ci weeru safar 1444 tombeeg fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2022 ngeen ñuy topp ci leeral FM bi ci Louga wala keppaar ga ca Kaolack wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Ziguinchor wala leeral ba ca Podor moo xam ci bu mënti doon ci réseaux sociaux yi moo xam dermalo officiel la moo xam groupe soppe fatawa docteur Mouhamed Ahmed Lo moo xam dégg diine xam sa diine xam lu sa diine ak yeneen yëpp ci youtube beeg facebook beeg yeneen canal yëpp ñu ngeen di ziar di ngeen yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo xafidahullah wa raa kon cheikh bi ñu jox la nga ibbee ñu doogoy jukki ci lenn lu fi rot ci laaj barakallahu fikum in alhamdulilah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh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 wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu dégg ak ngeen fi mën di toll moo ngi del siwaat ànd ak yéen ci jataay bi nu mbokk muy jataayu Al Fatawa di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ak ndimbal ak yërmande Cheikh Abdallah kon bismillah barakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na dafa am ay mbokk yoo xam ne ñu xamante la dëkk ci dëkk bi ñu ci nekk nag am na wax dëgg yàlla ci ay jàkk yu ñuy jullee nee nañ ñu organiser tournoi football ay match yoo xam ni euh, équipe yi mooy mooy ñi ñi jullee ci jàkka sàngam seen équipe ñi jullee jàkka sàngam seen équipe après ñu def euh, tournoi football euh, mu nekk benn benn nachat benn kii ci ñoom benn barnaamij benn programme ci ñoom mu ni ndax loolu da leen di dugal ci bidaa wala ndax dagan na wala dagan alhamdulilah jàkka day ab ci euh, ab société euh, musulman war naa mën a feeñ ci lu baax lu nekk war na caa am jeexit euh, yëmul rek ci jàkka ji ne daa am ay commission yoo xam ne ñooy doxal jàkka ci boppam lu aju ca imaam yaag noddukat yaag setalkat yaag ña koy garde di ko aar yooyu yëpp ay yitte la yoo xam ne day delluwaat ci biir jàkka ji ci boppam ak ni ñuy organiser njàngale maag xutba yaag yooyu yëpp waaye waraat naa am beneen rôle nag ci biir société bi boo xam ne wàll social lay doom social nag bu ñëwee day yaatu lool loo aju ci setal quartier baag lu aju ci commission yoo xam ne ñooy am ay relation ak waa koñ bi di xamante ñoom di leen soññi ñuy teewe jullit mbooloo gi di teewe jullit ajjuma ji soo amee jàmm ñu jàkka ji am participation ci jàmm jooje ka ko am ci këram ku amu na xaritam nekk noonu su ay ñagas-ñagas amee ci diggante nit ñi jàkka ji am rol ci lu koy rataxal di defar daal kon nag dina sport dafa dem ba bokk ci dund bi te ndaw ñi bëgg ko lool ba nga xam ne daanaka mën na leen a dugal ci lu bare bari jàkka su loxoom nekkee ca loola dana ci indi ak jubbanti waaye ni ma ko waxee rek lu loxoy jàkka di nekk lu nekk da caa war a amu jeexit lu mel ne football su fekkee dañoo wax ne tournoi bi yaari jàkkaa ko waa jàkka sàngam ak waa jàkka sàngam ñooy daje ca terrain sàngam tey di ko football sàllaaw danañ wattandiku lépp loo xam ne lu dul noonu la euh, bañ faa am jaxasoo ki góor ak ki jigéen du fa am ndax jàkk ja daa ñëw ngir jàngale nan la ñuy footballé euh, sol ay kiloot yu gàtt yoo xam ne say pooj day feeñ du fa am dañuy wone ne colum waa jàkk nii la war a mel te it colum jullit sax nii la war a mel waxtu julli jot ñu continuer di football loolu du ko mën a am kon daal lépp xeet woo xam xeet wuy jiyoog chariatul islam la moom du fa am su boobaa dana am njariñ ndax lañ doon jubli ca football ba moom dana am waaye danañ ke dolli leneen mooy yee ña xamul woon ne ah ndeke kat kon football mën naa am ci ab jullit waaye suy am yi lay amee wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana kii mi ngi tudd Aboubacar di woote Amérique nee na dafa am koo xam ni gan la ñëw fa ñu jiital ko pour mu jiite te moom mu war a wàññi nee na moom mu ni leen loolu daganul moom na topp ci ginnaaw su ko defee kenn ci ñun jiite su amee ñaar raaka moom bu ko neexee na sëlmal ñun ñu continuer nee na ña fa nekk ñëpp ni ko déedéet diine ji doo ci dem ak sam xel du noonu dagan na mu dem jiite moom bu sëlmalee ñun ñu continuer mu ne nag mu bëgg ci lu leer naññ loo xam ne dina ko mën a convaincre ndax la ko ñuy wax daal convaincre ko. alhamdulilah xam na li dul leer foofu mooy eh, gan gu ñëw fekk ay nit yor seen jàkka di julli ñu ne ko faw da ngay jiite loola moom lu mën a ñàkk la ala kulli li mu bañ mën a nekk su leen jiite woon te fekk moom daa. war a wàññi su jullee ñaari rakka su sëlmalee dañuy jóg mottali loolu simple la loo xam ne ak jooyoo amu ci ci borom xam-xam yi amma su fekkoon ne moom daa bàyyi imaam ji mu julli ji motal moom mu julli ci gannaawam su boobaa eh, ak jooyoo am na ndax day continuer ba ànd ak moom ba kar sëlmal wala ndax sañ naa toog taaye sëlmal wala day toog di ko xaar ba mu dikk fa imaam di taaya ngir sëlmal mu xaar ko ba mu yetti wax la yoo xam leen lu ci nekk ay waroon xam-xam wax nañ ko ñii nee nañ na ànd ak imaam ba keroog muy sëlmal suñ ca ak moom ku mel ne ibn al-Mundir sax rahimahullah moom da ko tudd loolu ijmaa la waaye naa ne ba am na damm ndax am na boroomi xam-xam yu wax leneen am na ñoo xam ne dañ ne bu fekkee ne daa nekk ci gannaaw imaam ji di matal te moom mu bëgg a wàññi su imaam jógee dem ci ñetteelu rakkaam rek moom day taay ba taayaam jeex mu daal di sëlmal ak julleem jeex loolu mbooloo wax na ko am na ñu ne déedéet sañ ko jëkk sëlmal imaam ni def kay mooy na bàyyi imaam mu dem di àggale ñetteeli rakkaam ak ñeenteeli rakkaam moom mu toog di taaya bu taayaam jeexee it mu continue di ñaan rek ndax ku sa taaya jeex da ngay ñaan su imaam delsee nag ba ak si fa muy taayaa taayaam ju mujj mu ànd ak moom di taaya su sëlmalee mu daal di sëlmal yooyu yëpp lu ci ne ay waroon a xam-xam wax nañ ko waaye ala kulli xaal Euh, du lool yi mu wax mooy li gën a dëgër la gën a dëgër mooy li ko euh, waa jàkka jooju yi wax mooy su fekkee ne dafa jiite bu sëlmalee ñu ci def ci mottali loolu moo gën a simple moo gën a yomb moo gën a dëgër itam ci wàllu fiq naam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na xale bu jigéen boo xam ne dañ koo euh, dañ koo takk ki ko takk amagun sax at wala ay weer wala ay fan noonu la ko waxe nee na ñu tas ndax da ko war a delloo canam su fekkee da ko war a delloo canam mu ni loolu fukk lislaam yaxale alhamdulilah ki mu ñu may ko ko ay fan mu tàggoog moom foofa la ñuy jëkk mooy ndax seq nañ dara wala sequñu ko su fekkee xas nañ seq dara moom idda war na ko ñaareel ba Euh, can giñ ko joxoon it moo ko moom la ca mooy fase ga ci kan la jóge ndax ku jigéen ki moo ñaan baat ñu may ko ko wala ku góor ki moo jekki-jekki wocc ko su fekkee ku jigéen ki moo ñaan baat tey ku góor ki bu ko neexee mu laaj ak canam ñu delloo ko ko mu door koo fase su fekkee ku góor ki jekki-jekki fase ko nag kenn wax ne des koy delloo ak can wallahu taala alam jërëjëf Cheikhana barakallahu fiikum cheikh bi kii nee na moom li muy laaj mooy muy dénkaane banque banque di jël ci moom benn intérêt maanaam muy bay ci xaalisam ci banque banque di jël ci moom euh, di am lu mu koy teq mu ni ndax loolu dina dagan wala déet moom jëmu fa leb waaye dafa dem teg fa xaalisam ñoom yi ci jël euh, dara mu ni ndax loolu dagan na wala déet alhamdulilah opération yi nekk ci biir banque te bari lool damay faral di wax ne boo bëggee xam ndax opération bi dagan na wala daganut da nga koy jële banque ba teg fa nit xool ba xam bu doon nit lool dana daganam ndéet xeeti compte yi daf ci am ay compte courant yoo xam ne bokkul ak compte épargne yi nga xam ne dañ lay dencal sa xaalis di li liggéey di jël ay intérêt di ko ca teg loola mooy compte bi nga xam ne day am intérêt bancaire ñu lay wax ne intérêt boobu bul ko lekk waaye bul ko bàyyi ci banque ba waaye yeneen compte courant yi am na ci yoo xam ne buñ la ko dencalee ñoom day am lu ñuy jële ci sa alal loola nag dañ laa dencal sa alal ngay fay maanaam da leen ko dénk ñu dencal la ko gardeel la ko garanteel la ko bab sàcc du ko yóbbu ak lakk mënu koo lakk saa boo ko soxlaa boo dikkee ñu jox la ko kon am na service bu ñu lay defal boo xam ne bu yeyoo ak pay la la ñu jële ci yow te muy lu tuuti loola foofu rek lay dugg ak pay lay doon bu daal di dagan ñu ngi mel ne rek nit koo ne woon kaay ma dénk la sama cinq cent mille franc yii nga dencal ma ko te aar ko te garanti ko ba bu ci dara sikkee nag yaa may fay mu ne laa loolu de mën naa ko waaye nag weer wu ne da ngay joxe cinq mille franc nga ne ko garaawul nañ ko def noonu su boobaa cinq mille francs yooyu muy lekk lu dagan ci moom la ndax ab service la la defal bu la ko jaral te service boobee dagan na wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na jigéen joo xam ni dafa gis baax te moom ci kaamil rek lay jàngi ndax dina dagan mu ko ne mu ni jigéen joxam xam ne dafa ñëw umra te li mu waroon def presque une semaine la ñeenti fan ya mu def ko Médine juróomeelu fan ba ba muy dem Màkka pour umra ji mu gis mbaax te baaxam juróomi fan lay doon kon dina ñibbi fekk mi ngi gis mbaax nee na kooku nu muy euh, defee umraam ndax xam na ni su fi doon nekk lu bëri dina def lépp ba mu des euh, tawaaf bi après mu dem tawaaf mu jeex waaye moom buy ñibbi dina fekk ba léegi mi ngi gis mbaax mu ne loolu daal jaaxal na ko euh, mu koy jooy guddi ak bëccëg bëgg cee xam euh, ban atte la ci am xam naa loolu yi ko garde muy gis baaxam te fekk tawaafagul kooku moom du mën a tawaaf te fekk mi ngi gis baax euh, ala kulli xaal waroom xam-xam yi nga xam ne dañuy wax sax ne euh, ku tojle mën ngaa tawaaf muy lenn ci borom xam-xam yi mel ne njërum Abu Xanifa cheikh al islam ibnu taymiya dëgëral ko cheikh Mouhamad di ci ubbee muy ku tojle am toj mu ndaw maanaam kuy ku jàpp ba àggal sam jàpp toj ñoom nee nañ njëru ngay génn di dem di jàppi waa di del si di tawaaf waaye mën ngaa continuer sa tawaaf te du yàqu ngir ñàkk am dalil bu wér cëng leer nañ buy wane ne euh, kooka euh, jàppiwaat da koy war am naa nag euh, régal moom ku ko gis wala janaaba muy toj mu mag kooku ñoom borom xam-xam yi juyoo wuñ ci ne mënta tawaaf ndax dalil yu wér ceng te leer yoo xam ne dafa jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme lim ne woon Aïcha man ngaa def mboolem li ngay def ci ay manasik ba mu des tawaaf doo ko mën a def kooku moom dafa leer nañ kon nag jarul muy continuer di jooy ginnaaw loola weesu na lañ koy wax rek mooy umra ba moom su fekkee ne nit ki loolu da koo gaar ci wàllu orientation nga xam ne su fi toogee ba set dana fekk vol bi passé bi mu war a ñibbee dañ koy wax na su fekkee ne day mën na prolongé waxtu wi mu war a ñibbee maanaam yokk ko toog fa ba set dem dafi too dafi omraam su boobaa loola mooy doon la gën ca moom su fekkee loola mënta nekk nag nga xam ne ñibbi doom nga fa sës tawaaful kon na jéema sant yàlla rek ndax ñëw na ba foofu te yéene woon na umra te yàlla dama koy ay yéene waaye saa bu ma nee si waat rek mu del si moo tax kuy kuy armal ku nekk ci aj wala ci umra dañuy bëgg ngay wax ne fa in xabasani xaabisun fa ma xilli xaytu xabastani su fekkee ne am na nag lu ma gaar ba tëj ma ba suma umra mënta àgg su boobaa fa may summi rek mooy fa nga ma tëje boroomam lay waxal loolu su ko nit ki waxee su ko defee bu ko loola gaaree mën naa daal di def ixlaal muy solaat ay yéreem te jenn deret du ko war wala dara waaye nag dana mën a ñibbi ba yeneen jëmmi jamono mu del siwaat door a umra naam jërëjëf cheikhana macha allah cheikh bi ne kii nee na dafay laaj ñoom fee ñu nekk ci bitim réew yeesa da am liggéey boo xam ni yow yaay togg yàpp mbaam bi xuux bi yaa koy togg euh, pour euh, ñi nga xam ni dunay jullit di ko jënd mu ni ndax dina dagan ci jullit muy togg yàpp mbaam xuux di ko tegal euh, ñu dul jullit ñu koy lekk ndax liggéey boobu dina dagan wala déet alhamdulilah mbaam xuux daganul ci ab jullit mu di ko lekk daganul ci moom itam mu di ko moom kon suñu yor passion boo xam ne day togg yàpp mbaam xuux di ko jaay ñedul jullit loolu sañu ko ndax sañu ko moom dafa am yu xaraam yoo xam ne dafa xaraam ñu jëfandikoo ko waaye xaraamul ñu moom ko lu mel ni or ci góor dafa xaraam mu takk ko waaye kenn xaraamulut mu moom ko waaye am na yoo xam ne nag des koo mëntoo lekk mën su ko moom itam loolu yàpp mbaam xuux ci la bokk mu des nag su fekkoon ne yeneen jëm moo yor ab restaurant boo xam ne yàpp ya muy togg yàpp mbaam nga ca ñu jël ko fa moom muy togg wala muy servir loolu laay faral di wax ne bokkul ci liggéey yi gën a sell waaye dalil bu koy xaraamal nag awma ko loolu moo tax ka liggéey ci wàllu orientation dañ koy faral di wax ne na jéem a gëstu di wut feneen fu gën a sell foofa ñoo xam ne jaay ñu yàpp mbaam wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikh na cheikh bi ki nee na dafa soxna soo xam ni dafa am soxna soo xam ni mënul am doom ñu jël ma nuyu borom këram defal ko ci beneen euh, jigéen mu ne doom jooju juddu kan la ñuy jàpp ni mooy yaayam kan la ñuy jàpp ni mooy yaayam mu ne tamit ndax jëf jooju ñu jëf dagan na wala daganul alhamdulilah defe naa ne laaj bi Cheikh Abdallah bu fekkee noonu la tëddee loolu moom du dagan maanaam jël man niyu borom kër bi def ko ci yeneen jigéen loola day xaraam ndax euh, mu ngi mel ne rek mu dem sëy sëy geneen jigéen wutewuñ te it loolu war laaj sax kuy yaayam ndax jabaram ji munta am doom moom yoonam nekku ci nii laaj bi tëddee noonu Cheikh Abdallah ni nga ko jànge day mel ne jabaram lii moom yoonam nekku ci dañoo jël màndiwum ku góor ki rek tam posé ko ci ku jigéen ka mu daal di ëmb su ko loola doom ja moom ñoom ñaar ñoo ko jur mu daal di nekk doom yàlla wala kulli xaal euh, li dagan mooy waa ji ci boppam euh, xëy na ñoom ñaar am na ci koo xam ne am na ayib gi ne ci moom ba tax lii jóge ci ku góor ki bu dee dox jëm ca lay war a tax ku jigéen ka tollu diggante du fa àgg loole yoon wu jafe mën na ko indi boo xam ne daane ci jigéen ji mu yoon wu sot wala mu nekk ne yi dox di dem te doon ay ndëndët yi jóge ci ku góor ki ñoo néew doole ba suñuy dox bala ñoo àgg euh, faf wàccub liggéey ci yoon wi su fekkee ne euh, lu mel noonu moo am mën nañoo jël la ñuy tudde booye ba muy lay nekk ci ku jigéen ke te doon ab nen nga xam ne loolu lañuy ñuy pikir ëmb di am daal di jël ndoxum ku góor ki euh, su ko defee dugal leen feneen foo xam ne ab climat lay doon boo xam ne du nekk climat nit moo xam lu mu doon nag ñii ay on boobu lañ koy tudde wala leneen muy ak lu mel ne tuyau boo xam ne dañ ko koy placé ba mu xaw a màgg ñu door koo jël opéré yaay ji delloo ko ci biir bi wala su fekkee ne mën nañoo opéré ku jigéen ki jël ndoxum ku góor ki eh, àggale ko ca nen ba ëmb daal di am ñu delloowaat loolu su ma nee amit loolu dara di sa nekk la dul daal mooy ñu jël ndoxum góor gu nekk ab jàmbur def ko ci jigéen joo xam ne ab jàmbur la wala biñ defaree nen boobu ba pikir ko ba noppi ñu jël ko dem peese ko ci jë poose ko ci biirub jeneen jigéen su boobaa loolu tam du dagan ndax la chaque ne deretam moo koy dundal euh, te réew yi ko daganal indi na ay coow yu bare bare bare ak i xuloo ak i deme tribunal yu dul jeex dafay am jigéen ñoo xam ne dañ leen koy ëmbal bañ toll ci war a am doom jékki-jékki réer ñu di leen wër kenn du leen gis am ñoo xam ne dañuy jur ba noppi ne sama dooma lànk euh, coow la jëm kaw ala kulli xaal euh, tomb boobu moom daganul ci chariatul islam wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi soxna si nee na moom mi ngi France amoon na or boo xam ne def àggoon na ci deux cent cinquante grammes waaye nee na mu bëggoon lépp xaalis mu jël or bi yóbbu ko ci euh, ci municipal bi xam naa daal fu koy joxee la ñu lebal leen nee na mu bàyyi ko fa mu ni su fa amee at or boobu da caa war a génn azaka wala déet alhamdulilah soxna soosi su fekkee dégg nañ li mu wax mooy dafa am ab or dem tayle ko or ba yàgg fa ba am fa lu mat at te wóor na ne or boobu mat na euh, zakat war na caa génn euh, kon yore na bor am na alal dañuy xool ndax bor bi muy fay fay gi dafa teew wala déet su fekkee fay gi dafa teew te mënu koo fayee ci leneen lu ci oor bi dañ naan ko kon jaayal sa or bi fay sa bor jaayee or ba fay bor ba ñu xool li des ci or bi ndax matatina nisaab wala déet su fekkee mat na ko mu daal koy asakaal su fekkee matatu ko mu xam ne kon asaka da ko waru noonu rek lay tëddee wallahu taala barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na ginnaaw tàkkusaan ginnaaw tàkkusaan wala bu ñu bu timis di waaju jot nee na saa yu fa duggee ci jàkka ji ndax dafa war a def taxiyatul masjid wala déet alhamdulillah yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ida daxala axadukum almasjida fala yajlis xata yusalli rakatayn su kenn ci yéen duggee ci jàkka bu mu toog mukk lu dul mu julli ñaari rakkaa loolu mooy taxiyatul masjid muy jàkka ku dugg ci jàkka fas yéenee toog da ngaa war a julli ñaari rakkaa waxtu yëpp yëpp la nag ba mu des rek jamono yi nga xam ne fukki la jant bi di fenk ci boppam jamono juróomi minit yi nu nekk nga xam ne ci la jant bi fenk te noppee gut foofu kenn mënu faa julli dara bu jant bi tolloo ci digg bopp li ñuy tudde commencement shawal ba ba muy dox ak diir diggante boobu kenn mënu fee julli jamono yi jant bi di so juróomi minit yooyu yi nga xam ne dafa toll ci di coucher di daanu foofu mënees faa julli ndax waxtu yooyu dañoo tere ku fa julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na waxtu yooyu ku fa julli wala ku fa rob ab néew lu dul loola nag su fekkee julli tahiyatul masjid ñëw na des koy julli su fekkee ne ab néew war nañ koo rob dañ koy rob comme des yetti waxtu yooyu rek wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na dafa am ay euh, kër yu ñuy jaay dañ koy leble ca boori Bambilor nee na da ngay ñëw nga euh, signé euh, contrat yi après nag nga war a fay te moom nee na contractuel la nekkul daal ko yore bu kii muy doon xool nag fan la mën a lebe te du am riba banque ju demee noonu mu ni nu muy def alhamdulilah kay banque yi day am na ci yoo xam ne danañ di jëfandikoo li ñu tudde almurabaha su fekkee ne da nga am su terrain ba koo tabax te am nga ci ay garantie loo xam ne mën naa doy banque ba ba tax mu wóolu la mën nañ laa tabaxal plan ba nga leen jox su ko defee nag bu ñu wëlbatikoo facturé la lañ lay laaj ñoom ñoo koy xam ngeen bokk dëppoo ca bala ñoo tàmbalee tabax su ko defee nga di leen fay eh, ci ab diir ba coro muy mat loola moom su boobaa day dagan li dul dagan rek sa digganteeg banque wala sa digganteeg kereen mooy yëkkati ab xaalis lebal la ne la demal tabax yi booy fay nag da nga ma ciy tegal nangam su loolu amee rek daganatul taala alam jazakumullahu xayra barakallahu fikum cheikhana cheikh bi kii nee na suñu aada fii de mooy ku am ay seex yu góor da nga koy tudde xasan ak xuseyn bu dee ay seex yu jigéen nga tudde ko aadama ak awa mu ne est-ce que dina dagan moom su amee ay seex mu tudde ko yeneen tur mu ne abdullah ak muhammad wala fatima ak roqaya yu demee noonu wala lay kon ne rek ci aada bi alhamdulillah ok ki am ay seex kay mën nga leen a tànnal tur wu rafet wu mu mën a doon moom sax àtte na bi mu waxee ne loolu aada la nee na aada la ci ñoom ñu di leen tudde Xasan ak Xuseyn wala Adama ak Awa loolu aada la rek waaye nekkul sharia ñu bari sax nag dañoo jàpp ne Xasan ak Xuseyn dañoo nekkoon ay seex moo tax ñu di leen tudde seeni seex te fekk nekkuñu ay seex Xasan mooy mag Xuseyn mooy rakkam maanaam nekkuñu woon benn ëmb mukk waaye mag ak rakk lañu woon ala kulli xaal tudde leen ay cheikh dagan waaye tudde leen leneen itam dagan na bu la neexee nga tudde wee tur keneen ki tudde ko beneen tur wa ca des loolu dara du ca nekk wallahu taala alam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayra cheikh bi soxna si nee na moom day diggante bi ak bi ñuy tàmbali julli am na fa diggante bu yaatu boo xam ne daal fonk loon woon julli daawul woon julli wala bu julleet respecté wu ko mu ne yooyu ni muy def da koy fay wala ndax da day dégg yeesa am ñoo xam dañ naan ko dangay ngay fay am ñoo xam dañ ko déedéet jéggalul rek mu jaxasoo daal bëgg a xam lu ci leer lu ciy dëgg ci sharia alhamdulilah ñu ngi wax ne bi mu masoore ak bi mu tàmbalee julli dafa am ab diggante boo xam ne daawu fi julli xam naa li ñuy njëkk a xamle foofu rek mooy julli moom jaaduwul ñuy xaar ba majeur door koo tàmbalee def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne muruhum bis salaati li sab'in wadribuhum alayha li ashr nee na gone yi suñu amee juróom-ñaari at digal leen leen julli ku ca dem ba am fukki at nag bu julliwut na la jaral sax duma ko mu julli kon julli moom santaane ñu julli ko tënkuwul ci nit ki mat na mu kàllaf su matagul su masoor agut it dañ ko koy digal di ca duma sax nag bulanke googu jaamu yàlla rek lañ xam ci jaamu yàlla yi yitte ji àgg foofu nga xam ne ku mu kàllaf itam am na fuñ la koy digale foo xam ne boo gàntoo am na luñ lay teg ci xeeti tegandaay kon loolu yi mu jekki ba majeur door a tàmbali di xalaata julli loolu ak càggante la waxuma laak nag mu toogaat nag ab diir gannaaw bu majeure door a walbatiku nag di julli waaye ala kulli xaal na sant yàlla ginnaaw mu ngi julli am na ñoo xam ne jaar nañ ci yooyu yëpp te teewul ñu continuer lànk ba ñu julli kon santal yàlla ci julli gi ngay julli bari say naafil la bari looy jégglu ndax li la faat ci ay julli waaye walbati ko di ko fayaat moom loolu munta nekk te it sharia sax santaane wu ko nag ci lu wér te wér kon da jaamu yàlla di bari ay la di bari looy jégglu sa borom tabaraka wa taala ci càggante yi nga xam ne gaar na la naam macha allah jazakum allahu xayra baraka allahu fiikum cheikhana wa waffaqakum lima fihi alxayra wassalah kon mbokk auditeurs yi fii la ñuy taxawandi ci suñu fatawa ba beneen ay bis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu nanu sant yàlla rek sant yàlla nanu sant yàlla rek sant nañu sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant soko sante moom rek kon mu dolli. soko kon mu dolli. soko kon mu sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla sant leen ko sant na ko. sant leen ko sant na ko. sant leen ko sant na ko. sant leen ko sant na ko. soo ko sante xéewali jot nii. soo ko sante. soo ko sante xéewali jot lii soo li daw ataman si taw gàncax gi law sant ko daw man soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom rek kon mu dolli sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant saa yu ma jaaxle sukuna la. saa yu ma jaaxle sukuna la. saa gaawallu ma sant la war naa. gaawallu ma sant la war naa. xool yi yëg la rongañu tuuru lammiñ sabbaal cër soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal soko sante moom rek kon mu dal sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant yàlla nañu sant yàlla rek sant kula jamu tabbi jinaan kula jamu tabbi jinaan kula jamu tabbi jinaan kula jamu tabbi jinaan kula weddi nuuru niraan الأولى والدين نيران الأولى والدين نيران خيول برنا لمكو جسنا dellu nañ di tuub يا ربنا ko sante moom rek kon mu dolli soo ko sante moom ko mu dolli ko sante moom kon mu dolli ko sante moom rek kon mu dolli soo ko kon mu dolli soo ko Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ne da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 quarante cinq suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tiwaawan Pikine Tali bu mag Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ca àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot une heures jàpp 22 ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bi 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات يميني لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليمي